président Macky Sall nee na ku gedd sa yaay aye dafa am wax yoo xam ni gémmuñu kilifa da ko war a jomb wax ak Macky Sall nag jot na woyofal gi mu woyofal tolluwaayu réew mi keroog bi muy def émission ak El Hadj Assane Gueye yéeme na di émission boo xam ni El Hadj Assane la mu ko waroon laaj yëpp laaj na ko ko. déngeen ngeen Macky Sall bi muy wax ci yokkute gi mu ne askan wi am na ko ci koom nañu wax yokkute googu fu mu ne nee na ñëpp yëg nañ ko mbokk yi na ku nekk fi nga toog nga làmb sa poos. mbaa nga ubbi sa poset xool ba xam li président wax dëgg la dafa mel ni Macky Sall xamul heure bi jot. waxtu wax ci justice moom jot na tëj gi ñuy tëj ay nitu opposition rawatina waa Pastef ba kañ ñuy wax Macky Sall naan Sénégal amul détenu politique maanaam nee na amul kenn ku ñu fi tëj Sénégal ndax politique. kon ñi ñu jàpp fan yi yëpp ñoom lu ñu jàpp gi ñu jàpp Bassirou Diomaye fay sànni ko ci kaso bi pour lan ndax rek dafa joxe xalaatam ci ni justice bi doxee lu tax rek ba sénégalais yi waru ñoo joxe seen xalaat ci ni tribunal yi doxee lu tax ba kenn du wax sa xalaat ci magistrat yi magistrat bu fi def lees defewul dees na ko wax Sénégal du république de juges tëj nit ci kaso dafa diis dum yoote tëjum kaso waree su ko foowee te justice su Sénégal nag jot na mu liggéey jëm ci defaraat kóolute gi nga xam ne mënta ñàkk diggam ak sénégalais yi tëjaate yu tegul fenn yi war naa dakk te bu nit ñi jàppee ni dëkk bi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey moo fi am nga boole kook poos yu amul dara yeeg fitna politique bi fi am lii raam ci ñag bi la jëm te bu yegsee dana màtt ñëpp li xew ngor fan yi ku ko yemele ci coowal suuf rek juum nga réew mi ci boppam moo nuy xus ak puudaru balu fetal te almet ji ma ki yor di kos ak a kosantu nañ cee dimbali ndax troisième mandat lees war a teg ci suuf la te sax nag moo ko fi diggee woon moo ni woon du bokk Macky Sall warul bokk ci falum njiitu réew bi war a am déwén 2024 Sénégal mérité wul di amati président bu àddina bi yëpp di teg bët di ko joxoñ naan day wax la ca gannaaw dëgg bu fekkee Macky Sall daa am jafe-jafe tànn beneen candidat ci ñoñam ba tax mu bëgg a bokkaat bu dee daa am jafe-jafe tànn keneen loola seen affaire la intérêt sénégalais yi newu ci àddina gépp nag rawatina suñu dëkkandoo yii ñi ngi ni sew di xool lii xew Sénégal ndax suñu jàmm ji ñu ñeewee waaw ndax loolu Macky Sall war nañu koo xañ ndax troisième mandat amu ci droit Macky rikkil